président donc di tàmbale waxtaan bi ci wolof après tënk ko ci tubaab ci lu mu gën gaawee di am mbégte di leen recevoir mais d'abord di jéggalu ci waxtu bi conférence bi tàmbali ndaxte li nu nekkoon di gérer moo bare mais di wax ci lu gàtt te ngeen xam ko déjà parce que ci bi ñuy mujj wax ci situation yi am au niveau des cours d'appel dañu waxoon ni 70 pour cent de nos listes yi ñu fa yóbbu woon décision yi ay décision yu nu favorable ngeen note ko mais en même temps ngeen déggoon que le ministre de l'intérieur demandé woon na préfet yi ak sous yi pour que ñoom it ñu def un pourvoi en cassation ci cour suprême et ba fii ñuy wax ak yéen gox yu bare loolu moo tax décision yi kenn appliqué wu ko loola di wane encore une fois taxawaayu président de la république Macky Sall pour éliminer ay liste Yewwi Askan Wi comme ni nga ko waxee nekk di def une compétition hors urne avec le ministre de l'intérieur bi nga xam ni moo war a organiser ay élections yu libres et transparentes ki nga xam ni moo war tëddee njaaxanaay diggante opposition ak pouvoir kooku moo engage ay recours ci préfecture ak sous-préfecture pour éliminer ay liste opposition ba tax na fii di département de Pikine ba fii ñuy wax ak yéen le préfet refuse d'appliquer la décision de la cour d'appel boo demee ci commune de Fass dem ci commune de Gandiol le sous-préfet refuse d'appliquer la décision de la cour d'appel boo demee ci commune de Nondol commune de Lambaye la même chose boo demee ci commune de Médina Sabakh la même chose Matam c'est encore plus grave et loolu on y reviendra tout à l'heure pour dire que le président Macky mi ngi yóbbee réew mi ci situation bu doy waar situation bi nga xam ni Yewwi Askan Wi nekkul pour di ko bàyyi mu jàll nekkul ci disposition wu sëgg muy tànn fan la sëgg ak moom ak fan la ñu sëgg ak moom te ci loolu la nekk en complicité avec le ministre de l'intérieur opposition bi yàgg nay wax ni pour ñu am une démocratie saine il faut ñu am un ministre de l'intérieur neutre et consensuel mais lii am wane na ni opposition bi dafa mos a nekk ci dëgg ci revendication boobu parce que kenn mënul expliquer que mu nekk à l'origine de ce qui se passe dans les préfectures et sous-préfectures <coughs> naturellement yeneen commune yi nga xam ni rejeté woon nañu au niveau des cours d'appel yooyu ñoo ngi fii may wax ak yéen au niveau de la cour suprême ñuy xaar ban décision lan fay am mais li gën a doy waar rek mooy tey jii nii le ministre l'intérieur fi mu taxaw ci loolu wax naa Matam Matam yéen ñëpp teg ngeen seen bët ci li am Djibril Ngom jël na sunu ay liste yóbbu ne ko ci président de la république Macky Sall mu recevoir ko ñëpp teg ci bët mu dalal ko ñëpp teg ci bët alors que en son temps li ñu waxoon yam fa mooy il a été débauché par certains responsables de l'APR mais ndeyu mbilli gi président Macky Sall la te loolu daan ci dellu si tout à l'heure bu Ousmane jëlee kaddu ci li nga xam ni moom lañ ci nar mais di wax opinion nationale ak internationale que Yewwi Askan Wi dina yóbbul citation directe à Djibril Ngom les avocats ont déjà travaillé sur le dossier citation directe bi li nga xam ni moom lay traité li nga xam ni moom lay visé mooy abus de confiance 383 du code pénal faux et usage de faux par rapport ak une décision de la cour d'appel escroquerie manœuvre frauduleuse 379 code pénal mais également tentative d'escroquerie à un jugement nit jugé ba pare ngay jéem xool nooy dafay escroquerie ci jugement au cour d'appel yooyu kon mu xam ko président Macky Sall xam ko ministre de l'intérieur xam ko les responsable de la l'APR yi nekkoon ci ginnaaw au niveau de Matam xam ni pare na avocat pare nañu et cette situation directe dina ko jot te yàggatul li may terminer mooy fichier électoral ba fii ñuy wax ak yéen kenn amul fichier électoral bi ñu war demee élection locale yu 2022 yi On est à moins de deux mois de, des élections locales. Pour être plus précis, à un mois, 20 jours. ba fi may wax ak yéen fichier électoral boobu kenn amagu ko donc fas nañu yéene bind le président de la république pour mu publier un décret génne décret pour que fichier électoral boobu nekk à la disposition des partis politiques parce que moom képp warul mën a xam règle du GIE warul mën a xam ce qui se trouve dans le jeu et également waxtaan fan lay jouer ak opposition ak fan la dul jouer avec l'opposition voilà les pouvoirs yi mu bëgg attribuer wu moom donc moo mën a xam ci sénégalais yi fan la fichier électoral bi nekk alors que le 8 décembre war nañu teg ay commission yi nga xam ni li ko tax a jóg mooy distribuer les nouvelles cartes mais nouvelles cartes boo koy distribuer alors que amuñu fichier électoral bi pour mën a def une comparaison est-ce que ñi bind woon ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci fichier électoral c'est conforme ak carte yu ñuy jël ak yu ñu du jël ban pouvoir de vérification et de contrôle lay opposition bi di am ci loolu du ci am lenn donc loolu aussi ñu koy ñaawlu di ñaawlu aussi la situation de Kédougou Kédougou il est clair que c'est une préoccupation de Macky Sall lui-même Kédougou il est clair que c'est une préoccupation pour éliminer Guirassy Kédougou c'est clair que c'est une occupation pour ressources minières ya fa nekk ak leneen ak leneen moom doomu mu am le contrôle de bout en bout et que benn élément de l'opposition man ci am benn droit de regard ou mën ci am un mot à dire loolu mooy le projet et c'est ça qui fait que partout mi ngi fay suivre Guirassy au niveau de la cour d'appel et certainement au niveau de la cour suprême pour que la décision soit la même mooy le rejet donc di wax ni sur cette question également Yewwi Askan Wi ne compte pas se laisser faire et reste solidaire avec le président Guirassy